ci biir internet. ministère de l'éducation nationale door na ab woote jëme ko ci bindu gi jàngalekat yi ak ndongo yi wara bindu ngir am xàmmeekaay bu ñuy woowee identifiant de l'éducation nationale. bindu bi farata la ci ku nekk. ñu ngi koy defee ci jëwrinu école yi ak njiitu inspection académique yi fépp ci réew mi xàmmeekaay boobu di identifiant de l'éducation nationale dina tax ngeen mën a jot ci mbooleem jumtuwaay yi ngir mën a dooleel njàng mi ak njàngale mi ak xarala yu yees yi salaamaaleykum merci d'être avec nous chers téléspectateurs heure bu baax bi gannaaw journal bi euh, ma ñëw man ak mairie d'habitude ñoo koy ànd di defandoo saa su ne jeudi bi mu nekk dernier numéro de la semaine mairie bi mairie Baye Diouf nag semaine bi euh, wax nañ ko du ñëw dafa am empêchement maanaam dëj la am di ko jaalewaat encore une fois di leen jaajëfal yéen internautes yi mi ngeen heure bu baax bi gannaaw journal bi di jaajëfal Modou Fall mi leen ko doon présenté ak bu télévision Futurs Médias di leen jaajëfal yéen téléspectateurs yi euh, heure bu baax bi li xew ci biir internet bi hashtag net bi miin ngeen ko comme ni mu nekkee noonu ci suuf sunu net la muy Facebook Twitter wala Instagram gannaaw loolu dañuy remercier bu baax encore une fois suñu sponsor officiel waa ministère de l' éducation nationale ñoom ñi fi initié identifiant de l' nationale ñi nga xamante ni dañuy ñëw di identi fas identifier eh, seen bopp muy corps professoral bi muy élève yi mu nekk lu am solo lu innovant loo xam ni waa ministère de l' éducation nationale indi nañ ko fii ci depuis début décembre ba actuellement dañ ko prolongé ba tey jii d' ailleurs tey le 7 euh, janvier tey ji lañ ko fas yéene dakkal mais lu am solo la loo xamante ni gis nañ ni élèves yu bari participer nañ ci euh, professeurs yu bari bëri participer nañ ci ci seen initiative bi ñu def ngir mën a euh, digitaliser système euh, scolaire bi mu nekk lu am solo loo xamante ni euh, waa ministère de l'éducation indi nañ ko di leen jaajëfal ñoom ci seen innovation bi di wax ni jamonoy digital la ñu nekk jamono jamonoy internet nañuy mën a tirer jëm ci côté bu baax bi te loolu am na solo lii ñu initier nag ñoom waa ministère de l'éducation nationale di leen ci jaajëfal lu am solo la tey ji lañ ko dakkal gis nañ ci internet bi réseaux sociaux yi hashtag bi influenceurs yeeg blogueurs yi ñëpp jàpp ci neen jàpp nañ ci yëf yi ngir gën a mën a communiquer ñëpp euh, daal di ci mën a jëfandikoo te lu am solo la euh, li xew ci biir internet bi démb ak tey nag yaatu na bari na vidéo yi partagé nañ ko ci réseaux sociaux yi am nañ pàcc bu yaatu lu ñu réserver démb la woon saison 2 ñu commencé comme ni ko internet yi duppee saison 2 ci mbirum couvre-feu bi nga xamante ni jagleel jagleel nañ ko ñaari région yi muy Dakar ak Thiès démb la tàmbali woon gannaaw ba ko autorités yi jëlee ngir xeex mbas mi démb nag ci guddi gi dem bi mu démarreel ci 21h bi vidéo yi partagé nañ ko ci réseaux sociaux yi ñëpp gis nañ ko maanaam quartier yu bari dañ doon manifester gis nañ image yi ñëpp di ko partagé tànn nañ ci yenn ci quartier yi nga xam ne démb amoon na ay manifestation ngir gëm a gën a xeex ñoom nee nañu couvre-feu bi d'accord uñu ak président li mu joxe image la nag yi ñuy partagé ci réseaux yi mooy li xew ci biir bi ñu tamit dañuy ñëw partagé ko c'est bizarre xoolal xoolal xoolal xoolal xoolal xoolal yëmbal eh, te te te te bizarre na xoolal mi ngi noonu image yi ñuy doon partagé démb ci couvre-feu bi mën nañ ko wax saison 2 comme ni ko internautes yi duppee ci mbirum xeexu Covid bi yenn quartier yi yëngu woon li ñu doon gis Géejawaay gis ko pikin gis ko ñaari tali gis ko euh, ci yeneen quartier yu ci nekk yoo xamante ni gis nañ ni ay émeute moo fa amoon ñëpp doon nañ def ñenn ñi sax doon nañ def ay live euh, Facebook ngir gën a partagé ku nekk la xewoon ci sa koñ waaye euh, ministère ministre de l'intérieur defoon na ab wàcc ci yenn gox yi rawatina Médina gis nañ tamit ay image image yi nga xam ne waa Médina ci boppam ñu nga woon ci seen kaw terrasse doon ko partagé eh, mu nekk ay image yu eh, yoo xamante ñoom autorités di wane ni ñoom seen bopp démb seen wàccaloon nañ seen bopp ngir xool situation yi après dinañ leen ñëw sax actuellement ci déclaration bi nga xam ni ministère de l de di Antoine Diome moom def na ko léegi ñoom ñu ngi jàkkaarloo actuellement ak presse bi ngir yëy yàbbi ci mbirum Covid bi ak situation bi nga xamante ni moom la Sénégal di dund réaction yi nag bari woon na ko ci période yi embouteillage bi amoon na Ndakaaru démb euh, metti woon na lool ñenn ñi mënuñu woon yegg fi ñu jëm avant 21 heures euh, wala mënuñu woon yegg ci seen kër ba 21 heures jotee situation bi compliqué woon ku nekk nag doon def say post ci réseaux sociaux yi muy Twitter di Facebook euh, mu nekk loo xamante ne lu doy waar la ba ku nekk doon ci yëy yàbbi sénégalais yëpp partagé ko ci réseaux sociaux yi mu nekk ay images yi nga xam ne comme ni ngeen koy gisee nii ci écran bi am na yeneen vidéo yi nga xamante ni autorités yi démb bi ñu wàccee ci yenn gox yi ñu jàppoon ni foofu doon na am ay manifestations ñu dégtal leen ko. ministre de l' intérieur ministre de l' intérieur mooy jàll ngeen instant yii nii ministre de l' intérieur moo nekk nii joxam ko biir Medina instant yii nii ministre Antoine Diop ñu ngi nii joxam ko biir Medina ànd ak cortège bi ak gars yi yëpp yooyu gis voilà mi ngi noonu euh, internautes yi yéen seen bopp yenn posté vidéo yi hashtag bi sunu net la ñu tamit ñu partagé ko loolooy sensu euh, loolooy waral émission bi li xew ci biir internet bi ñu ngeen gis noonu Medina la xew woon démb ca ba moment couvre-feu bi mu nekk situation bu yéeme boo xam ne ñëpp gis nañ ko ci réseaux sociaux yi muy Facebook muy Twitter ku nekk doon ko partagé wax naa ko léegi ni jamono ji toll la ak fi jamono toll léegi téléphone portable moo tax dara nëbbootul dara nëbbuwul ñëpp dañuy partagé li xew démb image yi ngeen di gis nag mooy bu ministre bi doon dem foofu ca Médina wax nañ leen ko gox bu ci nekk muy Ngor di euh, Almadi sax démb amoon na ay jafe-jafe ak li xewoon ca banlieue bi muy Géejawaay di Pikine Médina pareil ñaari tali aussi ak yeneen zone yi nga xam ne ku nekk gisoon na ni vidéo yi ku nekk doon ko partagé ci euh, saison de couvre-feu lii nag ñenn ñi di ko ñaawlu ndax nee nañ Euh, ñun ñëpp ñoo war a mën a bokk xeex bi xeex bi benn la muy Covid 19 la ñu bëgg mu jóge fii nañu respecté lii di mesure barrières yi takk masque yi ñenn ñi nag euh, gëm nañ ni bu ñu respecté li nga xamante ni euh, moom la autorité yi jël comme décision wala jël comme ay ndogal ngir mën a xeex ensemble pour Covid bi lii ngeen di gis nag mooy ministre de l'intérieur actuellement nii ñam ña ngay jàkkaarloog presse bi am nañ ci benn extrait mu wax ñu moom situation bi nga xamante ni démb dund nañ ko. Euh, moom ci boppam bi mu wàccee constaté boppam situation ci yenn zone yi nga xam ni gisoon nañ ne amoon na ay jafe-jafe. Il y eu donc euh, des questions qui sont revenues de façon récurrente par thématique. La première d'entre elles a concerné sans nul doute le couvre-feu et principalement les premières heures qui ont suivi tout de suite son entrée en vigueur. Alors sur ce plan, je voudrais rappeler que cette décision qui a été prise d'installer, ou en tout cas de décréter de la part de son Excellence Monsieur le Président de la République l'état d'urgence assorti du couvre-feu, est une décision prise sur recommandation du Comité national de gestion des épidémies. Et sur cette base, elle vise la protection avant tout des populations. Et c'est le lieu d'ailleurs de noter, parce que moi-même j'étais sur le terrain hier avec certains de vos confrères, c'est le lieu de noter que les Sénégalais dans les régions de Dakar et de Thiès ont observé la mesure. Il y a eu quelques manifestations qui ont eu lieu mais euh, après quelques interventions, l'ordre a été rétabli. Mais pour l'essentiel, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y a pas eu de difficulté par rapport à l'application ou à l'entrée en vigueur de cette mesure de couvre-feu. voilà mu nekk kàddug euh, ministre de l' intérieur moom Antoine Diome dégg nga ko lu mu wax nee na euh, donte amoon na ci yenn jafe-jafe ci yenn quartiers yi ñoom maîtriser nañu situation bi ñoom en général daal li ñu constaté ci ab tënk mooy sénégalais respecté nañu couvre-feu bi waaye image yi nga xamante ni wan nañ leen ko sànq ci réseaux sociaux yi ci yenn gox goxaan la woon wax nañ ko couvre-feu bi nag dafa concerné ñii di dakaar ak Thiès ñaari région yi ñu jàpp ni ñoom ñooy épicentre euh, feebar bi di Covid bari na ci ay cas yi di gën di yokk Covid bi. wax nañ leen ko duñu ci jóg di gën di sensibiliser eh, sénégalais yi ñu xeexandoo ko ensemble mu jeex ndaxte situation bi ñuy dund réew yu bari ñu ngi koy dund ba tëj actuellement dañuy confiné reconfiné doo xam sax ci jamono ji ñoom ci yan situation lañu nekk am na ñuy dund lu gën a jafe euh, ñun nag nañ ko xeexandoo image yi ñu gis nag euh, xam naa ni peut-être euh, premier ni mu nekkoon jour bu njëkk bi maanaam guddi gu njëkk gi ci mbirum couvre-feu bi 21h ba 5h du matin gars yi miinaguñ ko mais xam naa ne tey bi ñu gis image yu ni mel ñun ñëpp daal nañ ko xeexandoo ensemble ngir fexe jële fi Covid 19 ci réseaux sociaux yi nag démb. fi ñu partagé image yi nga xamante ni ñoo xewoon ci yenn gox yi image bi ki fi nekkoon ministre de l'intérieur ci la ñuy des moom Aly Ngouille Ndiaye image am bii nag def na buzz démb ci naxte ci bëccëg bi eh, dañ ne am na beneen poste boo xamante ne war nga ma ko génneel Youssou wala El Hadj ci ginnaaw voilà bii ñu ne eh, àdduna daal mi ngi nii Aly Ngouille Ndiaye moom tey sax 21 heures mu tëddi comme ñëpp lii nag la jël def ko euh, coup de communication bu garaaw bu yéeme ndaxte moment précis parce que heure bi ñuy wax 21 heure boobu noonu 21 heure et quelque mu publier ci réseaux sociaux yi muy Facebook ak compte Twitter benn image bu mu toog takk maskam toog di seetaan matcham image bi nag ñëpp di ko partagé à la limite ñenn ñi dañoo mujj ne daan ne xanaa Aly Ngouille Ndiaye mooy ministre de l'intérieur ba léegi c'est bien euh, réseaux sociaux la parfois ñu créativité bi daf ciy am solo surtout ñi nga xamante ne ñooy gérer seen compte yi community manager yi xaw a détourné parfois yenn euh, tooñ yi mu nekk loo xamante ni lu fën la Sénégal mi ngi nii euh, lii nag ci ak internet ñoo ànd mook réseaux sociaux ñoo ànd euh, sénégalais yëpp doon koo partagé démb à la yenn commentaire dañ naan xanaa alay ministre de l' intérieur de ba léegi pourtant du moom ko depuis moom nag saison saison bu njëkk bi fi la ko fekkoon waaye saison 2 bi Antoine Diome moo fi ne dégg nañ ay kàddoom léegi imagine nag ñëpp di ko partagé ci réseaux sociaux yi ku nekk ngi def ab post ngir mbirum couvre-feu bi jafe-jafe yi nga xam ne sénégalais yi ñu ngi koy dund surtout ñu doon dem diggante aéroport ak ndakaaru ndaxte dañoo tëjoon ñenn ñi ñoo génn ak communiqué fésal ni aéroport bi yoonu aéroport bi péage bi dañ koy tëj ñenn ñi doon naan bu ñu tollee ci jafe-jafe maanaam mu war a dem euh, voyager ci yenn heures yi nan la ñuy def ak yooyu jafe-jafe bu ci nekk nag sénégalais bu ci nekk ñu ngi ko doon jéem a posté ñenn ñi def ay live ñëpp di ko partagé ci réseaux sociaux yi tànnal nañ leen yenn image yi nga xam ne xewoon na ci yenn gox-goxaan yi ci euh, internet bi surtout ci yenn quartiers yi nga xam ne jàppoon nañ ni violence yi foofu la ëppoon wala manifestation yi ndaxte wax ji benn la ñoom nee nañ euh, tëj bi daal dafa teel wala feebar bi demee fi woon noonu seen ay kàddu nag ñun daal en tout cas li ñu ci gën a mën a wax mooy sensibiliser sénégalais yi doo xam sax looy wax mu gi ci euh, feebar bi ndaxte yëf yi dafay gën di compliqué léegi rek ñu ngi naan ñu euh, mutation bi feebar bi muy changé dañ ko gis ci yenn dëkk yi gis nañu yéeg ci yenn site d'information yu fii ci Sénégal ñu ne am na ay euh, virus bi ñuy dippee ni dafa changé waat am na leen lu luñ ci njort fële ca Gambie xam naa dinañ ci ñëwaat ak ay leeral ci information bu nu mel surtout ak rédaction bu télévision Futur Média gis nga image yu Aly Ngouille Ndiaye boobu nag internet yi jël nañ ko fii ak démb ak tey moo nekk image bi gën a def buzz ci réseaux sociaux yi mbirum couvre-feu bi à la limite boo tapé Aly Aly Ngouille rek image bii ngay gis te pourtant moom <laughs> nekkatul ministre de l'intérieur waaye mbir internet ak Euh, réseaux sociaux moo mel noonu gis ngeen euh, tooñ yi nga xam ne daf ko détourné def ko à sa mu ne communication bu am solo ba internet yi yenn ñi dañ koy saluer te loolu am na solo leneen li mooy internet yaa ngi réagir déjà ci Facebook bi actuellement min ngeen suñu page Facebook bu télévision Futur Média seen ay réaction dañ koy gis en temps réel ñu partagé ko ci télé bi comme ni ngeen koy gisee noonu social TV lañ leen lañuy ñuy wootee li xew ci biir internet bi hashtag bi suñu net la muy Facebook Twitter wala Instagram li ngeen di partagé nag ñun tamit dañ koy dañ koy gis nii seen ay commentaires dañ koy gis en temps réel di ko euh, partagé ak yéen te loolu nekk na lu am solo li ñuy ñëw mooy information bi nga xam ñun ñëpp jot nañ ko ak suñu WhatsApp wan leen condition d'utilisation yi nga xamante ni euh, WhatsApp daf ko changé ñëpp jot nañ message bi je pense bien yéen internautes yi gis ngeen message bi xaw na jaaxal ñenn ñi xaw na jaaxal euh, ba ku nekk di demande te pourtant ay conditions expliqué woon nañ leen ko semaine dernière mairie ñëwoon na ci di expliquer que ni WhatsApp dina changer doxalin ci année 2021 bi léegi nag li mu tàmbali nii euh, ñu ne WhatsApp moom dafay euh, dafa fas yéene supprimer seen compte yi si boo leen accepté wul seen condition d'utilisation bi nga xam ne teg na ko actuellement nii ba ñëpp demandé ñëpp accepté amul sax fooy fooy bañ a accepté di wane ni euh, dafa bëgg a contrôler suñuy données personnelles wax naa ko ñi kii moom Facebook moom Instagram moom WhatsApp bi benn yëf la li ñu ciy jublu mooy gën a contrôler suñuy données personnel léegi dem nañ ba nga xamante ni miin nañu WhatsApp bu baax ba mënatuñ ko bàyyi wala boog pour ñu bàyyi ko day jafe ñu indi lu bees lii gën ñu mën a contrôler commentaire yaa ngi noonu nag depuis euh, bi nga xamante ni ku nekk jot na message bu ñu mel ci sa WhatsApp da nga naan ok rek gaaw jàll mais pourtant ñi ngi ko ñi ngi ko jàpp ba le 8 février 2021 euh, date boobu nag bu weesoo dootoo mën a utiliser WhatsApp ndaxte accepté woo condition d'utilisation bi nga xamante ni pour permettre gën a euh, maîtriser seen données personnelles yi nga xamante ni ñoom euh, da nga koy paas Facebook di ko paas euh, WhatsApp pour gën a maîtriser information yi commentaires yi bari na nag ku nekk koy partager ci réseaux sociaux yi nekk na lu yéeme lu doy waar ba mbiri internet moo ni tollu jamono ni toll à la limite da naan li ma doon waxtaanee sànq sama benn grand ne ko da ngay seet benn damay joxe exemple moom da doon seet oto ci internet semaine boobu yëpp chaque jour. bu ko laajtee bu ko laajteewul lépp algorithme bi da koy proposé oto rek bi mu jëndee oto ba pare gisatu ko di wax fi jamono toll ak internet rek gars yi ni ñuy contrôler suñuy données personnel ba lépp looy seet ci sa machine boo fa nekkee di seet lu bon sax ku ubbi sa machine dina xam yow mii ban façon nit nga dina retracer xam yow lan ngay suivre canaliser à peu près lan ngay dox ndaxte ci sa machine rek machine rek léegi mën nañu comprendre nit ki sa téléphone portable rek léegi mën nga comprendre nit ki naka naka la mel moo tax bul joxe kenn di paas kenn sa numéro téléphone sa téléphone portable muy xooloo ko def yëf léegi jamono ni toll comme que léegi fexe nañ ba suñu données yëpp dem nañ dañuy contrôler sax léegi ci suñu téléphone yi WhatsApp nag lii mu nar euh, dafay ñoom euh, GAFA bi ñëwoon nañ ci expliquer leen ñoom GAFA ñoom Mark Zuckerberg ñi moom Facebook ak ñi moom Twitter ak ñi moom Instagram ak ñi moom ay Amazon ak yeneen ak yeneen kii yu mag yooyu nit ñuy contrôler lii euh, ñëpp jot nañ ko te ñëpp ngi koy partager actuellement te def accepter sinon dootoo mën a utiliser WhatsApp ba commentaire yi bari na explication yi nag xam naa fii ak mardi dinañ ci ñëw gën leen développer gën a suux suux xuus ci biir comme ni ñu koy waxee xuus ci biir bu baax euh, ak mairie ndax mairie euh, dina ci ñëwaat bu baax a baax information baa ngi noonu ñëpp jot nañ ci euh, te ñëpp ngi koy partagé actuellement ku nekk xaw a jaaxle nooy def da ngay rek pousse comme ñëpp ni ñu def rek bi mu ñëwee ñëpp accepté Fatima ndax yow accepté nga <laughs> waaw internet yaa ngi nii di ci commenter déjà ñëpp jot nañ ci ku nekk di wax ni euh, moom jot na ko mais dangay ngay accepter rek amul beneen solution dangay ngay accepter rek pousse loolu mooy condition d'utilisation bi nga xamante jàpp nañ ko fii ba février mois de février je pense joxe nañ bi ci euh, euh, message bi nga xamante ni ci WhatsApp bi dala koy proposer dalay wax le 8 février 2021 à partir de cette date moom dootoo mën a utiliser WhatsApp loolu la WhatsApp di proposé ci eh, actuellement nii ci seen téléphone portable bi am na leneen loo xamante ni dina leen soxal yéen internautes yi soxal leen yéen téléspectateurs yi mooy eh, plateforme bii di tap TapTap tap TapTap mooy eh, benn application la boo xamante mën ngeen ko télécharger ak seen seen téléphone portable mën ngeen ko télécharger di ngeen lii nag TapTap bii nag dalay jox possibilité ngeen envoyé ay xaalis. à part de Europe boo nekkee Europe wala nga nekk Asie am nga possibilité envoyé Afrique diaspora bi euh, mën ngeen envoyé facilement mën ngeen envoyé xaalis boo nekkee Angleterre France Italie Espagne Hollande wala Belgique am ngeen possibilité envoyer en Afrique du Sénégal rek fépp fu euh, muy gis ngeen dëkk yooyu ñu noonu Bénin Burkina Côte d'Ivoire Sénégal ak yeneen ak yeneen dëkk yi am nga possibilité aussi fay ay ndox ak courant yooyu dugg ci yenn euh, plateforme yi ñoom euh, grâce à Tap Tap Seen lii nag lu am solo la te moins cher surtout ñu nekk Europe di envoyer souvent fii xaalis Euh, ñoom waa Tap Tap di leen remercier ci confiance bi nga xam jox nañ ko li xew ci biir internet bi xam nañ ni internet yeeg sénégalais yi dañuy suivre heure bi ñëpp ñu jaalale fi ñoom ñi ngi ci réseaux sociaux yi mi ngi noonu Tap Tap Sen DFR moo nekk Instagram Facebook ña nga fa Tap Tap Sen FR ñi ngi Twitter Tap Tap Sen Sen mi ngi noonu. Tap Tap di leen jaajëfal euh, moyen la boo xamante ni mën nga envoyé xaalis euh, muy nu mu gën a yombee ci diaspora bi boo fa boo nekkee Europe mën nga envoyé xaalis ci yenn dëkk yi ci Afrique bi yëpp envoyé xaalis Sénégal surtout bon ñi nga xamante ni souvent dañuy envoyé fii xaalis ni mu gën a yombee miin nañ ko waa ñoom euh, tap tap bii nga xamante ni am ngeen possibilité télécharger pour plus d'information ngeen euh, télécharger ko boo leen amee iPhone mën ngeen ko télécharger beneen téléphone portable aussi mën ngeen ko télécharger tap tap seen baa ngi noonu mu ngi noonu mu gën a simple ngeen miin ko genre picc boobu rek. Euh, min leen di ci dugg di envoyé xaalis surtout boo leen nekkee Europe fii ci Sénégal moins cher doo fay lu bare bëri te loolu dina leen euh, jàppale bu baax surtout yéen ñi nga xam ne yéen nekk fii am fii njaboot ngir envoyé leen parfois ay xaalis loolu am na solo leneen li mooy buzz bi nga xam ne tamit pendant sa temps ñun ñu nekkoon couvre-feu États-Unis daan xew-xew bu garaaw fa amoon image yi gis ngeen ko ci réseaux sociaux yi gis nga ko nii information baa ngi noonu euh, démb nag euh, congrès américain bi da doon ñu mujj suspendre seen séance bi nga xamante ni euh, gannaaw foofu lañ doon tabbee officiellement njiitu réew mu bees mi muy Joe Joe Biden finalement mujj nañ ko yeggal ba tabb nañ ko Joe Biden moo nag 46e président bu États-Unis loolu c'est officiel mais gannaaw loolu démb amoon nañu jafe-jafe ñoom foofu ca Capitole bi bi nag mooy fi nga xamante ni mooy jaar pouvoir législatif bi congrès la boo xamante ma nga nekk ca Washington image bi nag boo ko gisee dafa nekk image bu doy waar ndaxte boo ko gisee da nga naan euh, li ñu doon woon à chaque fois bu africain yi di jógee fii di dem ay Espagne ak Europe ak feneen ak feneen image bi nga yaakaar nekkate image bi boo ko gisee boo xoolee bu baax 2021 ca États-Unis la Washington la mu nekk partisan Trump yi démb bi ñuy dund dugg di interrompre li nga xam ne moo nekkoon congrès bi lu yéeme la image bu doy waar am na ay vidéo yu inédite yoo xamante ni déjà sélectionné lañu ko démb situation bu compliqué woon foofu ca États-Unis daanaka sax ñenn ñi dañ ne tentative de coup d'état la woon yoon yi image yaa ngi noonu image yu ñu euh, jëlee suñu confrère ci Twitter bi mais surtout image yu inédite lu yéeme lu ñu yaakaar woon dina am ci 2021 pourtant am na foofu ca États-Unis ca Washington la woon démb ca capitale bi bi congrès bi doon réunir ngir tabbu officiellement kii di Joe Biden mu nekk 46e président euh, partisan wu Donald Trump yi ñëwoon fa doon yëf yi jaxasoo moom ci boppam mujj gi moo def ab déclaration Donald Trump euh, gannaaw ba woo partisan ñu dal génn foofu daal di mu nekk image yu Tinkara ba mu am pourtant ñeenti nit yu ci ñàkk seen bakken euh, lu yéeme la lu ñëpp yaakaarul woon ci jamono ji ndaxte euh, nekk na image nga xaw na jaaxal monde bi ba yenn président yi sax déjà génn joxe seen xalaat ci situation bu ni mel situation boo xam ñëpp ko déploré pourtant euh, mi ngi noonu Donald Trump démb image am bi la def ab déclaration d'ailleurs ci réseaux sociaux yi compte Twitter am Facebook am ak Instagram ba ci Snapchat dañ ko mujj bloqué ndaxte ay commentaire wala ay message yu doy waar yi mu doon envoyé moom président sortant bi désormais muy euh, Donald Trump mi nga xamante ni dañ ko gagné ci élection yi waaye ba léegi nanguwul victoire am waaye tey yeneen euh, fësal na ni nangu na pour la première fois euh, def transition bi ci jàmm joxe nguur gi ndaxte situation bi compliqué na ba nga xamante ni ba ci gis nga ko démb ak tey réseaux sociaux mi ñenn bu ci mel ni Facebook am dañ ko daal di bloqué pendant 24 heures Twitter da ko bloqué faf ndaxte yenn message yi dañu gis ni euh, méngawul ak fi situation bi toll day woote violence te violence euh, baaxul démocratie États-Unis moo nekk en jeu démb nag nekkoon na situation yi nga xam ne d'ailleurs Joe Biden moom président bu bees bi génn na euh, def ab déclaration ñaaw lu ni am lu ni mel médias yi démb tamit dund nañ lu metti ndaxte partisan Trump ci boppam Euh, doon nañ leen saax saaxee ñu xool image yi. médias américains yi partisans Trump yi dañ leen doon caxat euh, caxatee mu ngi noonu euh, situation bu États-Unis dund démb lu yéeme bariwul luñ koy gis d'ailleurs mën nañu wax ne ci ay at yi yëpp te musuñu gis lu nu mel te pourtant am na démb fële ca États-Unis ba yenn président yi ci boppam génn ñaaw lu ni mel waaye Joe Biden moom ci boppam def naa ab déclaration lu situation bu ni mel woo américains yi ñu ànd ak dal moom sax d'ailleurs official officialisé nañu euh, ne moom moo nekk officiellement candidat na officiellement président bu euh, États-Unis bu mu nekk 46e président moom euh, Joe Biden di mu nekk situation boo xamante ni États-Unis dund na ko démb mu nekk lu doy waar wax naa ko ñeenti nit ñàkk ci seen bakken euh, mu nekk lu doy waar loo xamante ni image yaa ngi ci réseaux sociaux yi Twitter surtout hashtag bi démb États-Unis la woon mooy USA gis naa ni hashtag bi ñëpp ko partagé. ak ay images yu inédites yoo xamante ni euh, en temps réel gars yi ñu ngi ko doon partagé dara du leen ump ak li xew ci biir internet bi émission bi nga xamante ne day relayer information yi xew ci biir internet bi parfois def naa ko dañuy boole utile ak agréable ñu tooñante partagé yenn information yi ñun ak yéen ñoo koy defandoo réaction yi bari na déjà ci réseaux sociaux yi muy Facebook Twitter wala Instagram surtout actuellement live live bi nga xamante ni mooy jàll ci euh, Facebook ou télévision Futurs Médias miin ngeen ko seen ay réaction ñu ngi koy partagé en temps réel hashtag bi euh, sunu net la muy Facebook Twitter ak Instagram le meilleur pour la fin kii kan la lii lan la miin ngeen ko aussi hashtag bi sunu net la bi ñu fi bàyyi woon gis naa ni commentaire yi bari na surtout sur Twitter te pourtant newoon nañ dañuy tànn temps yi dañoo jëlanteeg euh, chaîne YouTube bi quoi chaîne YouTube bu télévision Futurs Médias da leen fa dem di liker di commenter commentaire yi bari na kii lañ leen indiloon effectivement kii Alpha Blondy la voilà turam dëgg-dëgg di Seydou Koné ñëpp joxe euh, information yi mais surtout biographie mu wax atu juddoom euh, at bi nga xamante at yi nga xamante ne def na ko ci musique nekk koo xamante kenn dootu ko présenté ci Afrique moom Alpha Condé Alpha Blondy kenn dootu ko présenté ci Afrique engagement mais surtout détermination am ni mu am ñi muy représenté Afrique mais surtout di ko teewal ci yenn situation yu ni mel bu ci nekk day jog taxaw euh, moom Alpha Blondy yi ñi ko trouvé nag bari nañu surtout ak turam bi nga xam ne ñu ci bari jàpp ñu woon ni Seydou kone la tudd waaw nom de naissance Seydou Koné ñu ci bari jàppuñu ko woon mais effectivement te internet yu bëri ñoo ñuy gën de xamaleeg ñi nga xam ne la ñuy posé question yi kii kan la wala euh, lii lan la bi kii kan la Alpha Condé euh, Alpha man li may wax li tax may wax Alpha Condé nii Youssou génnal ci man <laughs> Alpha Blondy Alpha Blondy artiste ivoirien bu amoon musique am tuuti nag euh, mën nga ko teg ndànk ci suuf may ko internautes yi ndaxte gars yi gis naa ni euh, Alpha Blondy mii soxal na leen quoi ndaxte réaction yi dafa bari muy Facebook Twitter wala Instagram surtout ku ci nekk commenté def hashtag bi su net ci euh, question bi ñu posé woon na démb wax nañ ko parfois ñu tànn ci kenn yóbbu ko ci jiili nekk rond point te kër góor gi moom Jili CSB nga xamante ni mooy sponsor rubrique bi ñu duppee kii kan la wala lii lan la ñu déglu Alpha Pape Lo di ci ñëwaat. mi ngi noonu Alpha Blondy mi euh, turu turum dëgg-dëgg di Seydou Koné ñëpp xam na ko su ci engagement am détermination surtout euh, ni mu nekkee révolutionnaire mën nañ ko wax euh, mi ngi juddu le 1er janvier 1953 moom Alpha Blondy di koo xamante ni day woy ci Jula lank la bu nekk fële ca Côte d'Ivoire Baoulé boo xamante ni aussi ci Afrique de l'Ouest bi yëpp Baoulé yi moom bari na ci du ak Côte d'Ivoire rek bari na ci yenn dëkk yi nga xam ne aussi dañ ko fay làkk muy woy ci français aussi nekk koo xamante ne ku ñu respecté la ci tund Afrique bi ci engagement ak euh, surtout ni mu nekkee révolutionnaire di teewal Afrique ci lu ne moom la ñu waxoon kii kan la wax nañ ko léegi dañuy élargir yaatal bu baax a baax du rek Sénégal ñi fi def jaloore ci Afrique en général tey kan moo nar a nekk kii kan la bu bees bi war ñu ko ñu bàyyi ko téléspectateurs yi ak yi ba Euh, lundi am nañu euh, suba vendredi samedi dimanche ba lundi kii kan la kan moo nekk ci ginnaaw photo bi comme ni ngeen ko miinee sunu net peut ñu tànn kenn yóbbu ko ci jii li nekk sponsor officiel émission bi mi ngi euh, rond point cité Kër Góor gi li CSB xaar ma jox leen numéro téléphone CSB euh, CSB Jili CSB euh, numéro téléphone nam mu nekk euh, koo xamante ni mooy sponsor rubrique bi Jili nekk rond point cité Kër Góor gi numéro téléphone 77 420 34 48 77 420 34 48 moom Jili nekk sponsor officiel rubrique bi ñu duppee kii kan la wala lii lan la kan moo nekk ci ginnaaw photo bi wala kii kan la muy am ngeen vendredi samedi dimanche acca ma xool réaction internautes yi comme ni ñu koy baax baaxoo di defee saa su ne bu ñu leen euh, proposé kenn chaque jour euh, kenn jéem a joxe indice ne kii kii la ñu ngi xaar du ki ma gis ni ngeen ki commenté nii déjà ay Mariama Ba du moom dama leen koy teel a wax du moom <laughs> du Mariama Ba yaatal leen bu baax gën leen élargir. du fii rek mën na nekk Afrique en général du ma joxaat sax benn indice comme ni ma ko mairie di euh, tere am ngeen possibilité euh, joxe seen réponse ci sunu page Facebook bu bu télévision Futur Média Twitter wala Instagram hashtag bi sunu net la wala boo leen demee YouTube boo demee YouTube def slash def TFM commentaire fi ngeen ki commenter ngeen euh, joxewaale waale réponse bi wala ngeen photo copier ñu ñaari photo yi image yi comme ni ngeen ko defee ci Twitter bi ñuy publier en temps réel di leen jaajëfal yéen internautes yi téléspectateurs yi heure bu baax bi mi ngi jeex nag 26 minutes la ñuy baaxoo di ko def saa su ne lundi ba jeudi désormais lundi man rek la mardi euh, man ak mairie mercredi ak jeudi ñoo ànd ci li xew ci biir internet image yooyu ngeen gis nag léegi la wadd sax mooy démb li xewul États-Unis bi yëf yi coow li amee ba pare dañoo dugg saccagé biir capitale bi jaxase ko fa mu ngi nii images yi ngeen di gis c'est des images inédites yoo xam ne ñu ngi koy partager en temps réel ci réseaux sociaux yi wax naa ko li xew ci biir internet bi dara du leen rëcc ci ay informations mais surtout ci li xew ci biir internet lii nag ma nga xewee ca gana démb la woon ca ngoon nga kenn ci député yi dafa jël ay bulletin de vote daal di koy ñu ne sàcc daw ak moom ba mujj gi armée bi lañ mujj woo image yi nag ñu ngi koy partager ci réseaux sociaux yi ca Ghana la xewee assemblée nationale ba ñëpp di ko partager actuellement surtout ghanéens yi ñu ngi koy partager ndax nee nañ yëf yi dafa mujj compliqué mbiru politique daal lu ne ngay gis muy ci assemblée nationale yeeg ci gouvernement yeeg ci dëkk yi comme que États-Unis moo dem ba saax-saaxee seen réew ma noonu lu ñu yaakaar woon mu am ci atum 2020 ah, lu ne mën na ne lii nag moom lañ leen di tàggoo jox leen dig daje ba suba ah, ba lundi incha allah gannaaw boobu di remercier bu baax euh, Noreyni Couture moo moo moo defar lii xaaral ma jox leen numéro téléphone Noreyni

Euh, mi ngi nekk Liberté cinq moom di ko jaajëfal di leen jaajëfal yéen internet yi ak téléspectateurs yi euh, émission bi day continuer mooy wax nañ ko avant la pendant ak après dañuy continuer affaire bi ci réseaux sociaux yi di jaajëfal euh, équipe digitale bi nekk ci ginnaaw di tax ngeen ñu mën a suivre en temps réel ci réseaux sociaux yi muy Facebook Twitter wala Instagram di remercier aussi ñoom Tons Am réalisateur réalisatrice bi wala réalisateur bi waaw non bàyyi ma bañ la réalisateur équipe bi nekk ci ginnaaw daal di leen jaajëfal jox leen dig daje ba su ba lëndi incha allah ci beneen numéro li xew ci biir internet bi.